asfiyahi.org. Oh. dafa fekk Seydil Hajj Malik radiyallahu taala anhu dafa am loo xam ni ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la dale woon ñu di ko bëgg ba ci jamono Seydi Abubakar ci la ko yàlla sotale. Aspia, Heat.org. ndax yonent sallallahu alayhi wa dara taxul woon moom ci wàllu boppam mu jóg di jihaad lu dul bëgg nit ñi dégg nga ma dugg ci diina ji xamante jëfante Cheikh Ahmed Tijani dara taxul tariqa bi ci wàllu boppam ak li mu ci am yépp moom ci wàllu boppam mu sonn ci tariqa bi sonn ci sharia bi lu dul bëgg nit ñi dee xamante jëfante Seydul Xaaji Omar lu ko taxoon jóg moom ci wàllu boppam di jihaad dégg nga ngir ci wàllu diine ak tariqa bi lu dul bëgg ñi dégg nga ma dugg ci diine ji ak tariqa bi xamante jëfante moo tax Seydul Xaaji Maalik radiyallahu taala anhu lu ko tax sonn dégg ci sharia bi ak tariqa ba tax moom ci wàllu boppam dégg nga tool yi mu sanc yëpp tax ko nga sanc njaar de sanc ngambu culee sanc jëg saaw sanc jàmm gan lu dul bëgg nit ñi xamante jëfante moo tax waaye lañ ci bëggoon seen jamono sotti wul de ci jamono séeréer ba sax la ko yàlla sotale moo boole adduna bi yëpp def leen ñu di ay daayira ba bi mu fiy bàyyi ko mu bàyyi fi dégg nga ma de cent seize daayira ñaari téeméeri daayira ak fukk ak juróom jamonoom la ko yàlla sotale suñu boroom nag booleel ko ci aw ñoreetal moo di mu indil ko ci union booleel ko ci ah ni ko gaay yàlla yëpp kat loolee leen taxoon jóg fexe bay ci sa jamono boole nga ci ñaari téeméeri daayira ak fukk ak juróom benn ñoom ñëpp seeni président seeni mbooloo di jëfante léegi nag danaa ci booleel aw ñoreetal muy union ba fexe ba fukki daayira yu nekk di jëfante seeni président dégg nga seen mbooloo di jëfante kooku mooy union union yàllaa ko indi ci jamono Seydi Aboubacar ngir dooleele ko dégg nga liggéeyam ndax Seydi Aboubacar dégg nga ma gannaawam la liggéeyam di feeñ moo tax mu dooleel ko indil ko union am na juróom-ñaari yëf yu nga xam ne yii nee nañu taxoon na Seydina Jibril li nga xam ne moom ci wàllu boppam moom la yàlla may yëpp mu mébatoon nekk doomu aadama ngir tuyaaba yi nekk yooyu te loolu soo ci daayira yi fekk ko ci rawatina union yi ndax wax nañu ni fa jibrilu lasna qad tamanna li sabaatin sa umbika anha an yakuna ibna a salaatu bi jamcin ma julusin li aalimin wa isaa'i itaamin wa iqaa'i diidama إيادة مرضى مع تشييع ميت وإصلاح بين الناس فيما تفاقم سيدنا جبريل am na juróom-ñaari yëf yoo xam ne taxoon na mu mébét nekk doomu aadama mooy julli ci mbooloo jéggaaleeg boroom xam-xam fekk ku mar de nga mu nàndal ko ak leen jirim ak fekk koo xam ni dégg nga dafa feebar moom ci wàllu boppam mu seeti ko ak fekk koo xam ne dafa faatu mu ànd ak ñoom ba ci janaase bi mu gunge ko dégg nga ñu jébbal ko borom mu dellu si ak fekk ñoo xam ni lépp dafa dox seen diggante ñu fexe ba arrangé juróom-ñaari yëf yi taxoon na mu ba nekk doomu aadama ngir tuyaaba yi ci nekk loolu nag yaakaar naa ne képp ku dem ci daayira daa ko ci fekk rawatina union yi ndax union yi ci seen wàllu bopp union yi ci seen wàllu bopp seen programme bu ñuy dimbalante ci seen wàllu sëriñ dimbalante ci seen bopp ndax seen statut lañ ca def mooy ñun day bu waxtu sàngamee danañu dem ziyaara gi suñu sëriñ kooku warugar la bu ñu ko ameel képp ku nga xam ni kii yow ci sa wàllu bopp yaa ngi tëkk jabar ci nun danañ la dimbalee nangam képp ku nga xam ni kii yaa ngi ngénte danañ la dimbalee nangam képp ko nga xam ne kii wuy ji nga sa borom daañu la toppatoo ba jëbal la sa borom toppatoo sa waa kër dimbali leen ci na mu ware képp koo xam ne da nga lakkale ñu taxaw dégg ci dimbali la képp ku sa alal yàqu ñu taxaw ci dimbali la yaakaar naa lii nag képp ku nga xam ne kii yow ci sa wàllu bëgg nga toppatoo sa lisaan wala sa tariqa wala sa diggante si xaj ma ak Seydi Abubakar doo ci war a am dara looy wax lii day mooy programme dimbalante gi sa wàllu sëriñ la ak dimbalante dee nga ci seen diggante yéen ñi nga xam ne ay mbokki taaliba ngeen kii nag man gisuma ci dara te it la lu nga xam ne lii it Seydi Ababacar ci wàllu boppam ci dundam moo ko fi bàyyi woon door fi jóge lu caagi nag loo xam ne daf fi jóge génn àdduna ñu sos ko gannaawam déedéet la nga xam ne dégg nga ma mooy programme union ba ca ba ñu ko xamee ni ñu koy forme kii nga xam ne mooy dut si ci wàllu boppam moo njaay cuun ñoo àndante dem ci waawan kista yow Bakar bu ko dafa am ñeenti daayira yoo xam ne nekk na ci Grand Dakar ñu bëgg ko boole dégg nga ma def ko mu di benn daayira ci bépp activité bu ñuy def mu jëm ci sa wàll ñu nekk di benn bu ñu ca jógee kenn ku nekk dellu ci sa daayira di doxal mu jox leen ci ndigal ñu ñëw fii ñoom ci di doxal loola ñu defal statut bi yóbbu ko ci kanamu Seydi Aboubacar jàngal ko ko mun leen loolu rafet na te statut ba lañ ca def mooy li ma leen wax léegi bu nanga bu waxtu sàngam jotee daañu ànd di dem ci awan ziyaare gi Seydi Aboubacar képp ko xam ni dégg nga mi ngi teg jabar ci nun danañ ko dimbalee nangam képp ku nga xam ne kii mi ngi ngénte ci nun danañ ko dimbalee nangam képp ku nga xam ne kii dafa génn adduna danañ ko toppatoo jébal ko boromam toppatoo waa këram képp ku ci lakkale danañ ko dimbalee nangam ku sa alal yàqu danañ ko dimbalee nangam jàngal ci réew ba kat stati bu màgg mun leen tabaarkalla loolu ànd naa ñu jóge fa nekk fii ci Grand Dakar di ko doxal am na jamono bu nga xam ne bii waa daayiratul kiram ci seen wàllu bopp yàlla dogal na suñu bëkki sin ma xëy di jàng ci Grand Dakar keroog ba ñu demee wax ko soore ni ko suñu bokki dégg nga seen maxa yi du ñuy jàng daf leen a wax di man day duma ci fatigué te booba ci dund Seydi Aboubacar la comme union am na Grand Dakar danaa ko wax président union ba pour mu organiser jàng yi mu dal di dem woolu dut si mu ñëw mu ne ko dama bëgg jàng yooyu nekk Grand Dakar na ngeen ko organiser ñoom dut si seen wàllu bopp ñoo dem tante tante ba ñoo installé rajo ñoo demandé permission ba ñoo installé taabal yi jële dégg nga bokki seen maxey ci seen biir nekk indi leen ci taabal di ñu fanaane jàng ba bër set ñu dellaat leen ci seen biir yi nekk roñ matériel ba yóbbu koroog waa daay di taam ba ñu leen di gërëm si ñu ngi jógee dëkk bu ñuy wax dagg ba trois heures du matin la ñu ak ci tànt ba léegi dund sëriñ Abubakar kon nag yaakaar naa ni xëy na ku i union day ci gannaawam nga ko contre waaye day ci dundam ñoom ñëpp àndante woon nañ te it dama yaakaar ni mbir la mu nga xam ne mii it ci ni nga xamee ni dégg nga noonu la koy sose yaakaar naa ni insha allahu taala dëppoo na dégg nga ma ak bindéef yi seen bëgg-bëgg ndax bépp daayira bu mu manti doon boo xamee ni ñu ngi sos i ba du ñu lay woo ci sa wàllu bopp mi nga xam ne yaay sa président ni la nga am ak sa vice président ak sa ak sa trésorier ñëw yaakaar naa ni loolu su fekkoon ni moom ci wàllu boppam neexul mbooloo ma kon duñu defe noonu ndax ñoom ci seen wàllu bopp du ñu jëfandikoo li olof wax ni da nga wot gaal ak yëgoo ba moo tax bala ñu koy def ñëw dana danañu teew ndax lépp lu mu manti doon diisoo def ca baax ndax yonent bi sax suñ borom tabaraka wa taala daf ko daan digal ni ko na nga diisoo ak saxaaba yi kenn ku nekk jox la la mu rafet la dégg nga ci xelam su mbir ma paree ba noppi nag na ngeen bàyyi sama loxo ma àggale moo tax ma ne kon wa shaawiruhum fil amri fa idaa azamta fatawakkal ala allah union bi it noonu la demee bala ñu ci dugg il faut ñu diisoo ndax borom waya dafa wax ne shaawir sibaaka ida naabatka naa'ibatun yawman wa in kunta min ahli lmashuraati fal aynu tanzuru minha ma tanaawana wala tara nafsaha illa bi mir'aati dafa wax ne bu xew-xew wàccee ci yow na nga gisee keneen na nga diisoo keneen ku dul yow nee na ndax ndax bët dana gis ki lu jege ak ki lu sori waaye balaa mën a gis boppam dem ci seetu kon nag programme union bi nii rek la demee lu nekk nag wax nañu ko ci e union nekkul ci ndigal ak ñi ko sos ay ndobin na ak ay naat lu nekk wax nañu ko waaye yëpp dara amu ci ci dund Serigne Aboubacar la tey moo ci joxe ndigal bu wér ñu sos union bi. ndax dafay fekk nit ki wàllu boppam su fekkee ni yàlla gisuloo na ko loo xam ne yow ci sa wàllu bopp gisuloo ko nga xam ne gis-gisam dafa sori lool moom gis na loo xam ne mi ngi dikk ci jamono te yow sa bët gisu ko su loola demee ba agsi na nga ca ànd ak la nga xam ne moom la ci yàlla dogal te nga bañ ko diingat ndax Seydi Aboubacar xëy na la taxawoon mu joxe union ci ndigal pour waa Grand Dakar def ko xëy na booba yàlla wonoon na ko ni union yi dégg nga dana yokk gannaawam incha allahu taala ndax ñoom seen gis-gis dina sori lool ndax wax nañ ni Seydi El Hadj Malick radiyallahu taala anhu ci bi nga xamee ni mi ngi nekk fii ci xob Anta am na bokk yoo xam ne daan nañu fi jóge dem fekk ko foofale bu ñu dem ñoom ci seen wàllu bopp toog ko ba waxtu timis jot boobu fii yépp benn kër amu fi ci leen la tuddoon ndaxte lii daf fi bari waaye bu bokk ya masaan tàggu ko ni ko ñu ngay dellu ci daf leen di wax ne lu tee ngeen ko def Medina moo gën a rafet tubaab yi sax du ñëwee Medina la ñu bind moom booba daf ko gisoon Sidi Aboubacar 1929 jëm 30 nekk nañu ci boulevard de la république benn bés moom ci wàllu boobu mu génn di doxantu gis xaalu Dakar ci ni mu mel am na lu mu ci waxoon ca booba jamono ci bii jamono lañ koy soog a gis te booba dafa doxantu ci gannaaw gee toog ba mu yàgg rek mu def benn xasida ci affaire Dakar di wax naan dégg nga ma ka anna Dakar fi hada zamani kama tugalil lada kulli almakani tara bayna alaziqati min ujabin tunadika alshahadatu bil'iyaani ترى الإيوان ينسب مدرك الصراط تدور به فنارات الجنان وتجمع في دساكر كل صنف حوال قد تدق من المعاني إذا جئت المحل لدى فيك عصم وحصم في المعارب عن أواني وهو دفك جسون يعتنا min lef cent vingt neuf ak trente neuf Dakar ci biir jamono mi ngi demee ni ki tugal ci bépp place boo dem rek dégg nga soo seetee la woon ci tugal soo ko seetee ci Dakar ñu ko ci yaakaar naa a di da ko gisoon nag moom yàgg na nee na itam da nga gis ci diggante mbedd yi kéemtaan bu nga xam ne bii kenn du la ko nettali yaa koy gisal sa bët sa moo koy gis kenn du la ko nettali nee na itam pays yi da nga gis pays yu nga xam ni dafaa demee ne pays Kisra yoo xam ne soo demee ci biir daaje fekk dégg nga ma ay lampe ci wet yi ay abbas suuf dégg ma ak i ventilateur wa tajmau fii dasaakira kulla sinfin xawaalu gadan tadiqu min almaani nee na soo demee ci kafe yi daaje fekk xeet bu nekk xeet bu nekk la muy làkk dégg nga ma moom ci wàllu boppam moroomam déggu ah loolu mu ngi soog am ci dakaar région bu nekk wàcc na fi léegi ah nee na itam ida jiital maxilla de fii ka asbun wa xasbun fil maali bil amali nee na loo ñàkk ñàkk soxla boo ñëwee Dakar am soxla ci dox waaxu rek ngay dëkk doo doo toog <laughs> moom ci wàllu boppam dafa gis xam ne yow ci sa wàllu bopp sa gis-gis àggu ca la mu gis joxe ca ndigal soo demee ba loola dikk ci jamono la gën a baax ci yow mooy nangul atte yàlla te bañ ko kontar bi sallallahu alayhi wa sallam am lu ko laaj waaye ba ñu ko ko laajee it ko ko ko laaj comme mi ngi jàkkaarloo woon ak xolam moo mën a tax loolaa mën a tax mu tontu laaj ba waaye bu gisul woon xolam du ko mën a tontu Seydi El Hadj Malick radiyallahu taala anhu laaj nañ ko laaj bu nga xam ne bii la tax mu mën ko tontu ko ko doon laaj dafa jàkkaarloo xolam moo tax mu mën ko tontu. Sëriñ Abubakar laaj nañ ko laaj bu nga xam ne ko ko laaj lu tax mu mën ko tontu dafa jàkkaarloo xolam moo tax mu man ko tontu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na mas nañu laaj ñu ko yonent bi du ñu lay laaj garab gu nga xam ni gii dafa am fanweeri car dafa am fukki banqaas ak ñaar banqaas mu nekk am na fanweeri car car bu ci nekk am na juróomi doom juróomi doom yi ñett ñaar ngi ci kër ñaar ñaa ngi ci naaj la tax yonent bi man leen a tontu dafa jàkkaarloog seen xol moo tax su gisuloon seen xol du leen mën a tontu mooy leen kooku adduna la adduna yëpp ba adduna jeex at a ci nekk te at fukki weer la ak ñaar mooy fukki banqaas yeeg ñaar yi nekk ci garab bi fanweeri car yi mooy fanweeri bés yi weer fanweeri bés la bés bu nekk juróomi jullee ci am juróomi julli yëpp ñett ñaa ngi ci kër ñaa ngi ci naaj tisbaar ak takkusaan fu mu ne timis fu mu nekk gee fu mu nekk fajar fu mu nekk waaw mu <laughs> bokk Seydil Hajj taala anhu mas na am benn mbokku pël bu nga xam ni bii daf ko fekk ci yëg saaw nit ñi liggéey ba wàcc mu war a waxtaanee ñi pour war leen a gërëm yóbbi leen dogal am benn góor bu ko fa laaj benn laaj te la mu ko laaj daf ko ni man de si sama laaj bi ma laaj laaj doomu soxna yëpp laaj naa leen ko de waaye kenn gàgganti wu ma ci indi naa ko nag tey ci yow mu ne ko lan la woon mu ne ko man de si damaa amul lu dul yëkk ak ñaari sunu te xaw ma ndax sañ naa gën sama gétt wala déet su doon ñun nag ci affaire nag rek lañ koo dal di joyal suñu yoon nekku ci waaye comme sëñ Alxaaj Maalik mi ngi jàkkaarloo xolam moo tax mu mën ah mu ne ko waaw su fekkee yow rek la daa ko sañ waaye nag soo fekkee mbooloo doo ko sañ fekk na moom lu mu jublu ci yëkk beeg ñaari sunu daf ko xamal ni ko dama mokkal lu dul Fatiha ak ñaari saar te xaw ma ndax sañ naa fu ma dem bel sama julli wala déet te xaaj maay daldi ko toon ni ko boo nekkee fu mbooloo nekk doo ko sañ waaye bu dee yow sa bopp daa ko sañ dafa dégg woon loolu Seydil Xaaj Maalik radiyallahu taala anhu dafa jàkkaarloo xolam moo tax mu man ko tontu Seydi Abubakar it am na ku ko mas laaj ne ko man dey si dama dégg ñu wax ni xam yàlla moo gën a yomb xam nit loolu koo ko wax te jàkkaarloowul ak sa xol di ko jaaxal ndax loolu daanaka boo ko ne seet xamul mën a nekk waaye Seydi Abubakar comme ki ko ko laaj mi ngi jàkkaarloo xolam daf ko daldi tontu ci saa su ne ko mën na nekk mu ne ko du ñu wax ne xam yàlla moo gën a yomb xam nit mu ne ko ah, mën na nekk ndax ni ma la ko man expliquer nga dégg ko moo di nan na nga fab tey sa mbuus nga sol ko ba mu fees te bi nga koy sol kenn fekkewu ko nga fa mbuus ma jàllale ci sa gannaaw yaakaar naa ne xam la yow mi ci kanamu mbuus mi moo gën a yomb xam li ci mbuus mi ci sa gannaaw mu ne ko nag suñu borom tabaraka wa taala noonu la de noonu la demee wali da yi ndax suñu borom dafa wax ci xadiisul qudsi yi ni awliyaa yi taxta qubaab yi laa yaarifuhum xayri samay wali ñu ngi samay suufi te kenn xamu leen ku dul man mu ne ko mi ngi mel naka nag yow moo xam ne da nga fab sa mbuus takk ko ba mu fees te bi nga koy sol kenn fekkee ko nga fa mbuus ma jàllale ci sa gannaaw yaakaar naa ne xam la yow mi ci kanam mbuus mi moo gën a yomb xam li ci mbuus mi ci gannaaw mu ne ko yàlla noonu la demee wari yoom yi kon nag boo dee xam yàlla moo gën a yomb xam nit mën nañ ko dégg ci boobu chance léegi itam yéen ci seen wàllu bopp ngeen dolli góorgóorlu bu baax a baax ndax nit ku nekk am na responsabilité boo xam ne yàlla moo la ko jox ndax nit su fekkee da nga nekk ci àdduna nekk ci loo xam ni ndigalal ku demee nekk si Abu Bakar la am yeneen i nit yoo xam ne ñu nga ci sa gannaaw di la wax naan lii du ndigalam nga di ca dem ba yàlla won adduna bi lii nga nekk li muy ndigal Seydou Bakar moo tax mu mën a doxe nii am nga responsabilité nag da ngeen di dolli góorgóorlu bu baax a baax eh, yéen ñi nga xam ni yéen a amee affaire union yi ngeen góorgóorlu ci seen wàllu bureau fédéral ngeen dolli ci góor góorgóorlu bu baax a baax lépp loo xam ni da ngeen ko daan jëf ci jëf-jëf bu baax la ngeen yokk ko lépp loo xam ni da ngeen ko daan wax ci wax ju bax ngeen yokk ko lépp loo xam ne da ngeen ko daan muñ ngeen yokku muñ nga ndaxte tey yéen ñi nga xam ne yéenay président union yi ñi nga xam ne tey jii ñoo nekk ci bureau fédéral ba lépp lu nga xam ne lii xew ne ci i union yi ñooy war a taxaw pour arranger ko képp ku fi nekk di président union yi képp ku am dégg nga ma lu la metti ci wàllu daayira yow ne wut si ala kulli xaalin bépp membre bu ci nekk tey ci daayira lépp lu la ci daayira daañu ci sa président wax ko ko su fekkee mën na ca dara baax na su ca mënul dara dana dem ci président union ba yëgal ko ko su ca mënee dara baax na su ca mënul dara danañ ko yóbbu ci bureau fédéral ba pour ñu dégg ma jéem ci sàkk pexe ba mbir ma arrangé loolu nag responsabilité la kenn ku ci nekk nag responsabilité ba nga amee da ngay xam lu mu doon bindee fii yàlla moo leen bind te bindu leen pour foofu. daf leen bind ngir bépp aadama boo xam ne amee nga responsabilité ci ñoom nga doxal ñoom la nga xam ne dégg nga mooy dëgg te nit dina toll fu nga xam ne fii bu fa xasee toll am benn naqar ci àdduna lépp lu ko war naqar rek daf ci war dëgg tànkam def ko mu di bànneexam ndax xadis ba dafa wax ne alxalqu kulluhum iyaarullahi a ila allahi anfaahum xadis ba dafa wax ne mbindeef yëpp njabootu yàlla lañu ki gën a sopp ci ñoom jëm ci yàlla moo di ki leen di gën a jëriñ kon nag képp ku leen lor yàllaay jëfanteeg yow kon nag nañu jéem a góorgóorlu ci loolu bu baax a baax xëy na lu nekk daa ngeen ko dégg wax na leen bàyyi fu nekk waaye di ngeen góorgóorlu te muñ rek ndax wàllu Seydou Aboubacar noonu la képp koo xam ni yaa ngi défendre wàllam foo mën a toll loolu liggéeyam bu mu liggéey ci yàlla moo tax mbiram laaj loolu ndax bëgg Seydou Aboubacar njëriñ ja ca nekk ci yàlla a ah, doo mën a tëdd na gisalal ba ñu fab ko rek jox la kat dajuloo coono nag daan na wax ni balaa jëkk ni nux nux jëkk ni war war nag ah déet du neex moo waral tey ngay nekk ci place eh, ni ba nga sidé Abubakar nga gis koo xam ne xëy na mën na am sa xarit la woon wala mu di sa mbokk wala mu di sa wëllëre wala mu di sa am ci jàmm mu commencé di la sa njaxas ba mu leen jotee dara nga taxaw fi nga taxaw dëgër loo barkeem te xam ni ci dëgg nga nekk ngeen dem ba mu yàgg rek mu tase yow jox loxo ne laa sëñ bi baal maa yaa nekk ci dëgg <laughs> loo koy waral <laughs> liggéey bu mu liggéey ci yàlla te bëgg bi ñu ko bëgg mooy waral tax mbir ma du mën jàppandi il faut rek am ñu la dëgg man loola yàlla seet loowu ci dara dafay seet ba xam bëgg-bëgg bi nga woote ci moom dëgg la wala du dëgg su fekkee dëgg la lu la waaye man a def daa ko mën dégg nga ma muñ ngir moom ba ba mu lay fekk si jox la loxo ne la yaa nekk ci dëgg su fekkee du dëgg nag bu mbir ma tàngee rek nga bàyyi fa dem sa yoon te mbir mi du mbirum adduna mbirum yàlla la il faut nag lef ci métit di ci am métit yi ne danga ko muñ rek ba bànneex bi di waaye su dee la naqari kat ah nga daal di bëgg jëfante du neex deret ndax su dee nit lu ma la wax nga wax ko ko tane woo ko ci dara yéen yem képp il faut aaya ji dikk rek wal kaazimiina al ghayza ah, la waxee lu ñaaw nga wax ko lu ñaaw yem su la xëttee saaga nga xëtt ko saaga yéen a yem su la dóoree yet nga dóor ko yet yéen a yem lañu leen limal xàmmee nag mu def la yooyu yëpp nga mën ko muñ kat ci la ñu xam ne am ngeen différence nañu dolli góorgóorlu bu baax a baax ndax am na loo xam ni boolo du ko maye si daw ba kër rek yàlla ak jëmmam moo la mën a dimbali ba nga am ko ndax lii nga xam ni moom la ñu ci wàllu si dew bëkkër te lu nekk ñu wax ñu ko lu nekk ñu def ko suñu wàll te masul tax benn bés dégg nga ñu fa benn kalima dawal ko ci kenn ku nga xam ne kii incha allahu taala ci Sidi Aboubacar la bokk la ko waral ko Sidi Aboubacar moo mën dimbali ba nga am ko kat waaye ngóor nit mënu ko maye. ah ku xamul responsabilité am yaa koy def waaye ku xam responsabilité doo ko def de dara du Sidi Aboubacar de ku xam la mu toll dëgg-dëgg incha allahu taala. wàllu Seydi Aboubacar ak Seydi Hadj Malick maamam incha allahu taala daa am beneen xalaat bu dul fab dara ñu teg ci dara kon nag na ngeen dolli seen góorgóorlu yaakaar naa lépp lu ngeen mu ñoon incha allahu taala mën naa am lu ngeen gisati war na ngeen ko déggee dégg ko it yaakaar naa ne incha taala du gën a metti li ngeen passé woon kon nag muñ leen rek waa ngi bëgg a jege li xam ni moo gën ci moom waxtu woo xamee ni yàlla dafa dogal digganteem ak kilifaam mu am ñoo xam ni daf ko doxale ma ci seeni diggante ñuy war di jëfante ak ñooñale da cay gën baax moo di bépp wax bu ñu indil nga yaakaar ni incha allahu taala loola ma nga bay koo ci jëmu su fekkee ne nag mbir ma daf la desee leer ba yow ci sa wàllu boobu nga am ci dara loo xam ne dégg ma yéeneen ko ci diingat nag ngeen waaxu ba ci kilifa nga laaj ko ba xam mbir ma nan la war a demee te loolu it su ngeen gisee ñu di leen ko wax mooy dafay fekk waa union bi ci seen wàllu bopp ñuy doxal loo xam ni ci seeni diggante ala kulli xaalin suñ ñëwee ca jëmmu doxalin ba sama wàll dégg nga lañu leen di indil loola nag la cay gën lépp luñ ci indi yéen ci seen wàllu bopp ngeen ànd ak ñoom ci boobu xaal su ëllëg a gisi bi ku ca am dara loo xam ne lënt na la nga waaxu ñëw laaj ba xam loola nan la war a dem via heat.org. Oh. na lu nga xam ne nii ci jamono gàmmu ga yéen ci seen wàllu bopp faboon ngeen ko teg ko ci i loxo mu di seeni enveloppe yi ngeen faboon jëme si ko ci sama wàll pour ñu di leen xamal ni incha allahu taala mboolem loo xam ne faboon ngeen ko ci enveloppe teg ko ci loxo bureau fédéral ngàbb nañ ko ba teg ko ci sama loxo benn fanaanu ci àll damay bañit ngeen jóge fi am ci benn lënt incha allahu taala ngeen xam ne daal képp ku ci faboon sa enveloppe teg ku ci bureau fédéral ma ko bureau fédéral ne ko joxoon nu ko sëñ ba yëpp ak si ci sama loxo incha allahu taala mbir mbir la yu nga xam moom ci wàllu boppam daf ci am loo xam ne dafay ma di leeral bu baax a baax xam naa ni am ngeen kóolute bu ma sëkk ci xam ne insha allahu taala ak si na ci sama loxo waaye manin ma xamal leen ko ci sama lamiñu bopp daf ci baax baax na ci ngeen xam ni daal mboolem yéen ñi nga ne fa woon ngeen seen enveloppe teg ko ci loxo bureau fédéral pour ñëw jox ma ko benn palaanu jàll incha allahu taala yëpp dikk na ci sama loxo su doon suñu gënal gënal la sax xëy na kenn ku nekk du ñu lay bindal leetar pour xamal la ni jot nañu ca waaye na mbir ma eh, dafa xaw doy waar ngir takku ko moo tax kenn ku nekk mënuñu la bind lettre waaye nag ñu xamal leen loolu pour yéen ci seen wàllu ngeen xam ne mboolem li ngeen tegoon ci loxo bi def dara pour ñu jox nu ko askan ak suñu loxo insha taala kon nag alhamdulilahi doole sant yàlla bu baax a baax sant kilifa gu baax gi nga xam ni mooy Sidi Abubakar ñu aju ci wàllam yaakaar ko addina ak alaxira sant nañu yàlla yi ci tete gi nga xam ni moom la ñu tete ci dundam ñu bokk ci àndante incha allahu taala am bëgg-bëgg ci wàllam ba mu xëy wuy ji boroomam ñun ci suñu wàllu bopp ñu continuer dégg nga ma di am bëgg-bëgg ci wàllam lëngale ko suñu wàllu yàlla ak suñu wàllu tariqa yi nga xam ne dafa aju Cheikh Ahmed Tidiane ak wàllu Cheikh El boppam ñu ngi sant ci loolu. ndax nit ku nekk. balaa ngay baax yow ci sa wàllu bopp nga xam li la yàlla defal lan la nga xam ni lépp loo am yow ci sa wàllu bopp ci yiwu àddina ak yiwu àllaaxira nga jàpp ni yaa ngi ko am ci sa barke sëriñ comme ni ko Seydil Xaaj Malik waxee radiallahu taala anhu ci faakatul xulaab ni yara alladina ala min alxayraati dunya wa uxra naxwahu qad yaati taalibe war na lépp lu mu am ci yiwu àddina ak yiwu àllaaxira mu jàpp ni mi ngi jóge ci barke sëriñam ndax bu fekkoon ni Sidi Abubakar du ñu ànd moom ci dundam mu jóge fi ñu dugg ci loo xam ne ëllëg gi si biir ci cànkute lay nga ma lay nekk kon itam du am benn njëriñ ci noonu ndax nee na am na aaya bu nga xam ne bii yàlla ma ko wax ci alquran waaye dafa am charte mu ca deg nee na bul wàcc yoon wa nee na alxaq naa bihim wa ma alatnaahum min amalihim min shay nee ko ala kulli xaal nit ñu baax ñi danañu fab seeni njaboot yéegal ko ci kaw seeni jëf-jëf donte la jëfuñu ni ñu toll nee na ala kulli xaalin aaya boobu moom ci wàllu boppam suñu bokk yu xonq yi nee na moom la ñu toppandoo moo waral tax fonctionnaire yi dégg ñuy fay seeni doom ak seeni jabar te liggéey luñu pour dara ci aaya boobu la ñu sukkandiku ba di ko def moo taxit nag suñu boroom it gaa ñu baax ñi man na fab ma seeni njaboot yéegal leen déngama ci seeni jëf-jëf donte la jëf ñu ne nu toll ndax su ne Abubakar nee na waaye def ca teg charte nee na bul wàcc yoon wa kat ndax nee na bu fekkee ne gouverneur général daf la jur nga tëggoo ne gouverneur général a ma jur ba bépp loi bu gouvernement français daf ñu violé ko ni du dëgg bu yàggee ba yàgg fonctionnaire daan respecté grade bi dégg nga ma loi bi ëpp la grade nee na bu ngeen ànd nit bu ngeen àndantee ci yoon mu jiitu nga topp ci gannaawam nee na moom mu jiitu su demee ba àgg te gisu la dana wàññeeku gàttanu si la te nee soo wàccul yoon wi daa ngeen daje te nee su ngeen dajee lépp lu maay moo ci wàllu na la ca nandal boo wàccee yoon wi nag yoonam nekku ci da ngay sànku rek